Merci de rester scotché sur votre chaîne TV Dakar Actu. C'est un plaisir hein, de vous accompagner pour la mise en service officielle quand même euh, du train express régional. Euh, nous sommes le 27 décembre 2021, euh, donc un jour mémorable dans le secteur transport du Sénégal parce que le Sénégal va accueillir donc son train express régional pour la première fois. aquel que é chose d'inédite. Je suis en compagnie avec euh, un confrère, un collègue, un ami, euh, Sersa euh, euh, qui donc avec lui, nous serons là pour vous accompagner tout au long du trajet que fera donc le train express régional pour rallier Dio là où la cérémonie d'inauguration se fera en compagnie et en, présence du chef de l'État, le président Macky Sall. Cher euh, c'est un jour mémorable euh, pour l'inauguration de ce train express régional. En effet, euh, aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis d'être en face de nos chers internautes pour leur présenter les, grands moments, les grandes euh, étapes, les étapes phares euh, qui suivent donc cette mise en commercialisation du train express régional. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la gare euh, de Dakar où sont exposés, comme vous le voyez, les différents, les différents wagons euh, qui vont donc euh, s'acheminer euh, progressivement au niveau de Djamniadio. Donc, comme vous le voyez, l'atmosphère n'est pas du tout tendue. C'est une atmosphère vraiment qui, qui, qui, qui, en dit plus sur donc l'exploitation de, ce, de cette terre. On, on, va simplement dire, Moussa, que donc le Sénégalais certainement sera, sera comblé. Parce qu'aujourd'hui, c'est depuis 2016, donc depuis que le président de la République a a annoncé donc, euh, euh, donc, euh, cette préparation qui suit l'exploitation et l'utilisation du train express régional. Depuis ce temps, les Sénégalais attendent ce jour. Donc aujourd'hui, ça va être un jour vraiment mémorable, un jour spécial. Donc le, président de la République, le président de la République va lui-même procéder donc à l'inauguration euh, donc, euh, du terre. Aujourd'hui, au niveau de Diamniadio à 17h, nous allons donc euh, y aller d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, nous en sommes simplement aux, aux, préparatifs, aux, différents préparatifs. voilà, maintenant, on va essayer de suivre, on va essayer donc de suivre et d'attendre le président de la République qui viendra d'un moment à l'autre. Notons bien que c'est à partir de 17h au niveau de Diamniadio. Donc je pense que le Sénégalais, aujourd'hui, verra euh, toutes euh, les opportunités et toute la, aura même toute la latitude d'utiliser ce bijou euh, électrique qui sera en quelque sorte une, vraiment une aubaine et va constituer donc quelque chose qui va vraiment contribuer au désengorgement de Dakar comme vous le voyez parce que Dakar étouffe, Dakar est donc vraiment plein de voitures etc. Donc ça va être vraiment ça va être euh, une, aubaine et une opportunité euh, qui sera offerte aux Sénégalais, donc euh, d'avoir d'autres moyens de transport de dernière génération, Moussa. C'est un soulagement, comme tu viens de le dire, parce qu'après beaucoup annonces hein, que le terre va commencer à circuler, nous en venons véritablement à ce jour hein, qui marque officiellement donc, la mise en circulation de, ce train express régional. Mhm. Euh, un bijou hein, moderne également, il faut le souligner, parce que euh, le Sénégal vient euh, de recevoir pour une première fois mhm. donc, de, telles locomotives hein, donc, qui vont participer à, desservir, comme vous l'avez tantôt dit, desservir donc, le, transport sénégalais. Mais il faudrait dire également un joyau il y a euh, tellement de caractéristiques. Hein. donc euh, euh, pratiquement c'est du confort, c'est la modernité, c'est pratiquement tellement de caractéristiques. Il y a la commodité, il y a, le confort, mhm. bon, il y a la climatisation, mhm. bon, tout a été vraiment tout a été dit par rapport au train express régional. Mhm. Maintenant, il y a également aussi la grille tarifaire, il y a les tarifs qui sont faits euh, selon, euh, selon, selon peut-être euh, les catégories, selon peut-être les vouloirs des, usagers, des passagers. Donc ça va être un peu en quelle sorte à la portée de tout citoyen. Effectivement, c'est ça, Il faut le rappeler. Donc, c'est un train qui fonctionne en bimode électrique et thermique avec une en vitesse moyenne de 160 km par heure. Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose vraiment qui vient en son heure euh, dans ce monde où, nous sommes, où les choses évoluent. Donc c'était essentiel que le Sénégal puisse entrer également dans l'ère du développement. Mm-hmm. Euh, solo solo tax euh, ñu koy accueillir ngir rek célébrer ko waaye ngir rek feussel euh, né walu transport fi ci Sénégal mu ngi commencer am évolution manam mu ngi euh, commencer am jéego tax nak nag tey di ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci wéru décembre ci atum 2021 ñuy nak recevoir li nga xamné modi train express régional ah muy loo xam lu bees tak la ci réew mi ah, ñu tambali projet bi ni 2016 dit ko door recevoir nak tay mise en service officiel bi la def mu war a nag euh, rallier ñu dem ba jam ñaaju nak daal ko fa ngenté li ñu niñ ko mëna a té te njiit réew mi war ko amal mu don lu am solo ci walu secteur transport bu Sénégal parce que djégo yu bees la ndax euh, ci wàllu euh, passager gis nañ li mu mëna jël dina dem ba cent passagers par par jour 115 000. voilà euh, donc passagers par jour hein, au, au au maximum donc ci première phase la nak première phase parce qu'il faut le

mu donne euh, loo xamante ni dina permettre euh, citoyen bi mu meuna déplacer wu te du am ben jafe jafé mu meuna déplacer wu vaquer à ses occupations di def li nga xamanteni mom moy activité ñu fatali ni également terre bi doon na loo xamante ni war na contribuer ci li nga xamanteni mom modi développement économique bu dëkk bi parce que tay euh, bu xolé lu melni terre Euh, mu nara euh, peut-être def lu lu néew ci diggante fii ak jam Diamniadio diggante fii ak ay euh, AIBD mhm. defe naa loolu day tax koom gi ak dem geeg dikk gi gën a yemb gën a gën a gën a gën a mën a nooy ci ki nga xamante ni moom moo di contribuable sénégalais bi mhm. donc defe naa li ñuy rappeler également terre bi daan na coûter li nga xamante ni toll na ci euh, juróom-ñaar téeméeri milliards ak euh, juróom-ñett fukk mhm. donc loolu la euh, moom mooy financement bi nga xamante ni amal nañ ko ci TER bi ñu ci bëri nag jàpp nañ ci ku ci mel ni Banque africaine de développement ku ci mel ni Agence française de développement AFD ku ci mel ni également Trésor public également contribué na ci mhm. même état du Sénégal euh, à travers euh, son propre budget euh, participer na mu doon mbir mo xamanteni donul rek lu Sénégal mom mais lu aduna mom la lu Afrique mom la donc defe naa tey askan wi warna ci gis bopam ñu faté ni également euh, manam fukki fan ak juróom yu ñëk yi dina doon lu gratuit euh, ci ñi nga xamante ni moom askan bi donc defe naa lu jar a leeral la euh, d' ailleurs sax ñoom am na dispositif bu ñu jël boo xamante dina permettre ku ci nekk euh, ci passager yi képp koo xamante bëgg nga peut être di dem ak dikk pendant 15 jours yooyu nga mën a fay ngay dem di dikk gratuitement nga am peut être procédure boo top lo suivre pour mën manam maanaam def li nga xamante ni moom liggéey bi nga xamante ni yow ko bëgg def donc defe naa rek ci lu ñuy préciser campé nañ décor bi Euh, li ci des euh, bëreetul léegi ñu daal di euh, départ daal di dem fële nga xamante ni moom moo di jam ñaajo journaliste yëpp a ngi fi mhm. ki ñuy xaar rek moom moo di peut-être wala boog li ñuy xaar mooy yenn directive yoo xamante ni war na mën a tax tey ñu daal di dem directement maintenant président defe naa daf ñuy fekk foofu ñun du ñu ànd mhm. <laughs> donc

Euh, bu fekkee euh, ci tarif yiñ ko yiñ ko tënk ndax téeméer la tàmbalee daanaka bi ci gën a cher 2500 mille la. Mhm. muy muy muy euh, classe première. Mhm. Ah, bi nga xam ne donc ñoom it am nañ ci wàll ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw waaye ñi nga xam ne seen poste diisul ñoom it am nañ ci wàll ah, pour wax ne rek ne jafewul jafe boobu noonu mais juste wax ne li ci ëpp solo mooy le fait que ñuy ñuy ñuy avancer jëm vers le développement loolu am na ci solo. Euh, ni nga ko waxee rek donc heure bi daanaka jot na euh, ngir waaj rek dugg jam ñaajo ngénte ko fa waaye it euh, wan sénégalais yi ñu gis ko ni ko Dakar Actu ne saa yu événement yi ni mel taxawee rek ñu jàkkaarloog internet yi waxtaan ak ñoom firnde leen ne ñu ngeek ñoom saa su nekk di leen gunge ci information xibaar yu wér te wóor. jërëjëf. lii ñu fi gis tey nga xam ne moom la ñuy dalal tey muy train.

ba noppi gaaw ku ne xam na ni boo xëyee jógee banlier di ñëw dakaar li ngay daj ci embouteillage jafe-jafe yi suñu yaay yi suñu rakk yi di daj loolu doonoon lu métti président boobu léegi ñu ci wut solution moo tax mu indi train bi tey jii ñu dëkk Tëngéej dëkk Bargny dëkk pikin dëkk Kër Massa dëkk Yëmbal lii seen mbir la nga xam ni ñoom ñëpp tey ku ci am aajo booy faj dakaaru di nga teel a ñëw faj ko delluwaat sa kër man gis naa sax ñu amoon kër côté yooyu dañ ko mujj jaay pour ñëw louer seen Dakar yaa ngi wax ndax problème mu embouteillage bon nag lii Macky Sall def askan wi la ko defal réew nag bu ñu la ko dénkee lu mel ni dañuy xaar ci mooy nga def loo xam ne askan wi dañ koy jëriñoo tey maa ngi dégg ay waa ay waa Guinée ay yeneen réew yi ah ñoom ñëpp ñu ngi fier ci doon africain ñu ngi fier ci suñu taxawaay président bon nag ñun fierté boobu ñun ñu yàgg ànd ak moom. di ko damoo daan ko fegoo daan ko tiitaroo ñun tey suñu bës la tey waaye bésu sénégalais yëpp la tey ñu fonk liggéey bii nga xam ni moom la président don liggéey askan liggéeyalu ko pour moom ak njobootam lii da ko fiy bàyyi bés buy dem bon da koo liggéeyal ngir askan wi ban nag baatu émergence nag bi ñu doon wax ku gis lii tey xam ni nag taxaw nañu dëgg-dëgg ci taxawal émergence booy jëlee stade olympique bi war a pare jël zone industrielle yi nga xam ni don waxuma la jam ñaajo

ñu gis ne daanaka paas bi téeméer ba juróomi téeméer euh, nga jàpp ne accessible na ci Sénégal yi. waaw waaw xam nga wax dëgg yàlla xam nga nag train moom donc ak commodité yi donc ak gaawaay bi ak yooyu yëpp donc mënta woyof waaye téeméer nag defe naa ni vraiment war na mën a abordable téeméer ci ko xam ni boo jógee woon Tëngéej war a ñëw dakaar bi nga def ñaari waxtu ba ñetti waxtu pour agsi boo ko defee daanaka benn soxla ngay lijjanti mbaa ñaari soxla donc lijjanti fukki soxla ba noppi delluwaat dafa naa ne bon téeméer lu lu ñu war a jar a mën a nangu la du non bon ak embouteillage bi yooyu yëpp dana ko wàññi tey bu train bi pare BRT bi pare ñu ceinturer Ndakaaru ah donc autoroute Saint-Louis pare donc ba jëm Fatick ak Kaolack donc léegi mu pare donc loolu bénéfice réew mi la mooy lan ku bëgg doxi sa soxla wala opérateur économique ولا ليجومي اك اك ييغا خامني نوني ا لانتيريو دو بي بو نكو واري اشيمينا داكار ليب مانا ويف ليب مانا يومب بون نك سونو بريزيدان بي نانيو كو سانت تي گرم كو تي نيانال كو مو ياغ في تي وير لو مل ني كات امنا نيو كو في جيتو وون تي دافو نيو كو في بون نك موم بو كو في دافي تي خالي نانيو كو نيانال مو ياغ في تي وير باسكو نك جوخات نانيو سونو ديجيتي فوالا مان ميغا خامني دافنا فوكيات امريك ها دي ديم بيتيم ريو باركي ديم باما ديمي دبي مي تي ترين بي لا دوغو ها tu vois donc nag tey jii léegi amatul train Dubaï train léegi sama train laay wax.